ahlan bikum njiital rebel ya nekkoon Casamance Abdou Elintin Gaata ña ko rey enquête kat ya xam nañu leen les éco yéene kaay ñi ko xamal ñaari nit ñoo ko rey ak kenn ku leen jàppale muy ñett takk dere amal nañu enquête ba xam nañu leen léegi nag jafe-jafe bi mooy nan lañu def ba teg leen loxo a yaaw seetal ñoom ñett ñooñu ña nga ca ca xàll bu xonq ba fañ nekk jamono ji sàndarma ya mënuñ faa dem man ma dem ci critique yéene fekk fa ay jàngale jàngalekat professeur yu fas yéen a amal geraw ngir ñu bàyyi seen mbokk mi ñu teg loxo Babacar Diop mahandoon ak Guy Marius Sagna doon ñaxtu ci courant bu cher bi critique yéen a ñi ko xamal libération di ñu xamal ne bu gazeli ma ñu teg loxo ca faux billet ya complice ya doon liggéey ak moom wax nañ de mbetteel nag la am ci yëf yi nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na jëwriñ ji di Cheikh Oumar Anne jaar na assemblée nationale de lu jëm ci wàllu étudiant ya ñu war a yóbbu université leen toll nañ ci juróom fukk étudiant état bi nag orienté na ci ñeent fukk juróom-ñeenti junne presque lépp la ñu ne déete waay mu yokk ci ne université Amadou Mahtar Mbow ca jam ñaajo ak université El Hadji Ibrahima Niass ca Sine Saloum fii fukki weer ak juróom-ñett mu noppi bañ jébbal ko askan wi ña toogal askan wi nag ca assemblée nationale féewaloo gu métti moo xam seen diggante député ku jégi ak waa Benno Bokk Yaakaar ya enquête yéen a ñi ko xamal ayaw seetal la waral seen réeroo mooy wàllu gaal gi suux ca waaxu Mauritanie sénégalais yu bëri faatu ci député Benno Bokk Yaakaar yaakaar ya dañoo jàpp ne wàllu mbëkk mi dem barsa wala barsàq njabootu xale yi ñoo deful lañ war a def député Lamine Diallo bokk ci ku jégi na leen du bàyyi waxu caaxaan caaxaan yi ngeen di wax am sa doom mu bëgg a faj gàcce xamul liggéey dugg ci gaal gi ngir teral la loolu la la ci waajur man lii dëgg mooy yéen nguur gi makkeeg ñu ma àndal war a wax ak na fexe xale yi xam xëy réew mi xam liggéey waaye moom makki mënut a rek la loolu de xam nga bëccëg samedi jàpp dimanche la tax na gaal gi ñu bëggoon a dem Espagne mooy bésu màggal gi am na gaal gu jógee woon fii Sénégal dem na ba yegg Espagne bi ñu wootee na yegg si nañ ci la xale yi ñoom it na ñu nañ dem danañ yegg incha allah fekk ñu bëri si ñoom duñ yegg ndeysaan ci géej gi la ñuy des ma des ci assemblée nationale ak xiiroo ŋaayoo ñàkkante ba dox ci diggante Idrissa Seck ak Ousmane Sonko vox populi ne ginnaaw élection yi weesu ak kuréelu ku jégu bees gi Idi taxawal Sonko ak Idi mayante wuñu dara ci assemblée nationale ayaw seetal ministre ya fay jaar ku nekk si ñoom ñaar ña wane sa bopp donte idi nag Déthié Fall moo ko fa teewal bu Sonko na lii Déthié Fall na laa ku nekk wane na moo gën a fës moromam dàq attaqué tamit ministre ya fay jaar ma jaar noonu dem ci réew mi yéen a kaay fekk fa Farba Senghor ma ngay dànkaaf waa APR ne yoon wi ñu jaar boo mooy dana ñàkk nguur gi de Ousmane Sonko mel ni ku naan ko su ñi war a yor nguur gi rek yor ko mooy ñu xarañ xam budget Sénégal ba suqali réew mi bañ a nekk 24 heures yéen a kaay le soleil yéen a kaay jox kàddu ku rafetlu lool doxalinu Macky Sall njiiti réew mi te du kenn ku may Moustapha Niass ba tax na nee na AFP APR man Moustapha Niass ak Macky Sall ba géej gi des walaat de ñooy ànd de kum neex ak kum naqari la naqari Mimi Touré mooy doxalinu yenn responsable APR yi bi war a ànd ak yar di wax lu rafet te di ko jëfee nag kàddoom yaa ngi ci laas yéen a kaay source a kaay di ñu xamal ne état bu li tax mu tànn Suez tubaab yi ngir ñu yor ndoxum Sénégal mi séddale mi mooy ne SDE daal mboolem lu mu digg woon mu waroon a defar ci ay compteur ci ay branchement genn wàll ga sax defut ko tubaab yi nag ñoom liñ diggée na la ñu war a def moo gën fuuf li SDE doon def moo tax ñu tànn leen la mu tànn ba addu ci tey moom Dakar Times mooy relation jëflante diggante réewum Sénégal gii ak Guinée Bissau xaritoo diggante ñaari président yi l'évidence yéen e kaay di ñu xamal na jege ñaale Cheikh Amar nar naa yóbbu ci yoon doomu njugo kebb bu jigéen waa grand place yéen e kaay ci fanweeri at ak ñaar métti jafe-jafe ci ay policiers yoo xam ne fañ leen na ràjjee woon maanaam dàq génnee ci fonction publique bi tàggat moom buggut a dem ca wetu Aliou Cissé équipe nationale déedéet ci record yéen a kaay la ko waxee lam ñu wax moom stade yéen a kaay mooy gaynde yi samedi dimanche bii dugal nañ ay bii yu bari ca Europe tàmbale ko ca Sadio Mané ba ca mbay ñaam mi lakk caaxi ñaari yoon ak ñeneen ak ñeneen sunu làmb yéen a kaay jox kàddu promoteur bi tëggoon combat Modou Lo Eumeu Sène nee na perte na ca xaalis bu du xaddu jeex desal na mbëri sponsor ya ba léegi joxe guñ dara xam nga ne loolu métti na réew mi yéen a kaay na ko réew mi si boppam moo métti Sénégal dëkk bee dëgër askan waa ngi xiif ñu bëri xamuñu luñ lekk ñii buñ lekkee duñ suur ba tax yéen a kaay bi ne sénégalais yaa ngi jooy mburu lekk lekk waa ma ne ma jox leen solution dellu leen ca maam ña cere mbuum baase ñeleng laax fonde dara dàqut ko da taxu koo cher